suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul tey euh, Prestige Thiès moo ñëwoon leen présenter émission bu bees bu ñu naan li fi nekk li fi nekk émission bu bees la buy daw site internet bu bees bu ñu naan Prestige Thiès sëñ bi ñu ngi lay ziar. yal na yàlla dolli ziar. tur bi nan la. Pape Diop. Pape dañ fi ñëwoon tey présenté la li fi nekk émission bu bees léegi yow lan nga gis ci dëkk bi lan moo fi nekk. waaw dëkk bi maanaam maa maa ngi fi Massambla mais gis na fa yu bari parce que am na xale yoo xam bu ñu leen defaree ñooñu dañuy ñëw mais am na ñoo xam kenn mënatu leen a defar sa trop waaw parce que am na ñoo xam ne bu seen yaay wéetee ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci kër gi seen papa ñëwagul. bu seen pape ya ñëwee mun ko diw ak diw li baña a baña and ak boy bi muy dem di baran di dik diko ciébal ceebal day leer waaw ndax bu yaay waxé defoo mu jottali ci pa bi pa bi deful non jaay yeeg yëpp am nañ ci waar ak mag yu goor yi ci kër gi bu ñu jubanté kon sunu Sénégal day baax wa mbaraan gi mom bari na. bari wa wa buñ ci duggé rek day bari. Ah. parce que même waxuma la mbaraan mais da ngay ne ci koñ bi nga né am ben far génn ama 10 muy 11 hmm. bu ci nekk ngay waxtaan ak mom lu ko waral mais wutal sa kenn ko bax teye ci xam nga fi nga waxe yow bo amé sa kenn ko bax teye ci so dewe ak mom quelque temps tak munta tak mu jeli bagaasan dem xajal ko mën tak takk kon mbalaan gi wàññeeku mais bo beugé fé 10000 beug fé djuni beug fé ñaari djuni lol du manane ne da nga yem ci ko bax mu ñew fekk la si kër yaay xamni bax nga mu tak la ci kaw bax yobbu la dego way kat bi. lu wax tak ma yobbu ma sa kër yaay ma diko walal diko rotal diko togal muy na muy lek est-ce que xalé goor yi ñi ngi tak batay non xalé yu goor ñom te dama leen di laal ndax duma laal jigen ba goor ku dakam baraan ño fi dakam baraan da ngay wacc dugg sa kër ñu tegg la reer nga ni xaar ma dem euh, euh, réunion demo réunion ya nga kër gan et puis ak takki suuf nan ko ba réew mi yomb naa lijjanti ah réew bi amna na ay takk suuf takk suuf wut sa ñetti pa dajale dem ñaan soxna si yegul sa baay yegul sa yaay yegul lutax boy tak dama jël sa paay koñ am nga iliman koñ am nga imam koñ doo dem jëli leen jël say kaar jël sa yëpp mu mat. xam nga dañuy wax ay président yooyu président deful dara liggéey la man dundal nu nun nag suñu jikko ñoo koy defar kaset bu ne dégg naa la nun ñoo sik parce que am na daa bu fi jaar nee na man na maa defar Sénégal ba mu mel ne Paris waaye mënu maa dugg ci biir kër yi di ko defar. ñu ngi ci li fi nekk toujours sëñ bi nanga def. waaw ah, maa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. noo bàcc émission bu bes bu ñu naan li fi nek li fi nek li nek ci dëkk bi bari na yow lan nga ñuy indil tay ah man li ma gis ma am ambulance la dama dugg ben kër di jaay xalé bu jigeen bi ne kay kaay ma jëna ndek léegi bi ma waxee ma jëna ndek mu dugg ci néegam woo doo ab sërëm na exil ma exil mu ne ma léegi dama bëgg nga më ma jëna ndek ma may ko 300 après mu ne ma léegi dama bëgg nga jom sa numéro téléphone après nga wañé ko ma fekk le sa kër manok a mo ah mu waaw après mo ne ma léegi danga may jox témèr ma jënd pis pisu bes bo boo suma ne rek dinaa la wo après wa dé après bima ko joxé témèr bi ma est ce que yow li ngay wote sax deug la wala du deug mo ne ma la xam nga comme ko goor la ma xol ba xam ki damay jëma a dil wala num démé demee li ngay wax deug la wala deug mo ne ma lii de dëgg jóor la ah, ma ah ma ne nga ñëw mu ne ma waaw ma ne xam li ngay wote deug la da ngay wan ma satan ma tek sama loxo mu simi tasseur bi na ma wan tegal ma tek sama loxo ma dem jaay ñëwaat après si guddi gi ma jaay bay xaaju guddi ma jaar fa ñu ne ana diw ñu ne ma ànd naag jëkkëram ma ne ko da nga am jëkkër ma woowaat ko ne ko yow kon mu ne ma sama ex copain sama ex far la woon rek sama baayu doom te am na jëkkër te saa boo fa fekk koog jaw jëkkër yi kooku sax yàlla na ma koy sunu borom jéggal. mais sëñ bi loolu li nga wax doy na waar de yow ku la laaj ndekki ah lan nga ci ay teg loxo yooyu yëpp di ci wut. ah moom kat moom ma bëggoon a mbaraan naan ma wàññeekul dem sa sama gàlle ma fekk la fa. kon bala ñu la mbaraan nga mbaraan. waaw waaw ah loolu la kan ñoom comme que affaire naxante la kay bala ñu la nax nga nax leen rek waaw ñoom dañ lay jema nax te goor mom boko naxé rek da fekk da ko won neex lepp lo dox rek ñoom xam nañ ko ba dañ lay bayyi ci biir. Mm. waaw tax xaalisu goor mom armé la xaalisu armé la boko ko di nga geeri faaw nga geeri far force. Senegal nekhul da nga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul. bëgg loo moomul ku Sénégal